bismillahi rahmaani rahim salaam salaam man la ndongo di bu daara ji famille maa ngi nuyu ñiy seetaan ñiy déglu cat ba cat ñëpp bàyyiwuñ kenn maa ngi ciy profité bonne année mes meilleurs vœux pour 2020 let go. salaamaaleykum salaamaaleykum si Fada Freddy euh, maa ngi leen di ziar yi ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam donc voilà maa ngi leen di souhaiter aussi une très très bonne année di leen ñaanal atub jàmm ak teranga ak tawféex ak taysiir yàlla barkeel dëkk bi suqali ñëpp lépp lu ñu sumb te ñi nga xamante ni dañoo ay projet yàlla sottal ko ci anam bi gën a waaw dañuy sant yàlla parce que euh, longévité boobu ñuy wax mooy liggéey la ak tamit euh, comme li ñuy wax rek am na loo xam ne boo ci nekkee aussi da nga ciy def fulla ak fayda euh, nekkul loo xam ne comme li ñuy wax rek passion la. Euh, passion moo ko jiitu waaye tamit dañuy teg passion bi dañ koy dañ koy teg ci yoon teg ko mu ànd ak liggéey donc loolu moo tax euh, ñu def plus de vingt ans de carrière euh, comme li ñuy wax musique aussi nekk na loo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne souvent affaire caaxaan la waaye boo xoolee li ci biir liggéey la que ça soit li nekk ci biir scène studio ak li nga xam ne moo ko ëmb lépp lépp lépp lépp liggéey la donc du dara lu dul liggéey longévité longévité boobu. waaw 97 euh, bi ñuy njëkk génne album maanaam album international parce que laata loolu euh, jotoon nañu génne euh, albumu albumu jotoon nañu génne cassette jamono bi nga xamante ne ku ñuy wax Bruno Charles ak Jacques Marty ñoom ñoo ñoom ñoo ñu produire woon donc ñu dem ba nga xamante ne mbir yi commencé naa jéggi dayo gars yi ne ah léegi nañ ko yaatal mu am benn producteur bu jóge woon Europe ñëw fekk ñu joué lycée technique la Delafosse mu seetaan suñu concert rek ne ndaw ñi moom faw ñu fexe liggéey ak ñoom donc euh, jamono boobu fekk na ñu ngi doon pare bac donc euh, bi ñu paree euh, ba nekk ISEG si la ñëw ak ay contrat am ñëw ne daal man daal bu doon sama sago dañuy liggéey ak yéen donc 97 boobu jamono boobu mi ngi fekk groupe yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon te maanaam sori woon ci mbir yi bëri woon nañu Euh, am na ñoo xamante ne ay groupe underground la ñu woon ñu soppoon leen loolu mu mel ni que African Yëfu euh, yu amoon na yeneen groupe ACB Supreme Black euh, idéal naka naka la Supreme Supreme Black VIB VIB amoon na tamit Positive Black Soul New Frost Muslim New Frost Muslim donc moom la gars yi di wax puis Frost après donc bëri woon na ay ay ay ay groupes yoo xamante ne Euh, ñu ngi fi woon doon def liggéey bu rafet euh, maa ngi fàttaliku sax ne Coolcoxis bokk na ci euh, ki nga xamante ñi nga xamante ne ñoo njëkk jox micro groupe suñu Flavor ñu leen doon wax NBA NBA à l'époque mm. ñoom tamit bokkoon nañ ci ñi ñu njëkkoon jox micro pour ñu mën a maanaam exprimer wu wane ñun li nga xamante ne ñun moom la ñuy def jamono boobu fekkoon na groupe mu amoon ay groupe yoo xamante ne tamit comme ni ñu ko déggee ay turu américain la ñu yoroon ñun nag bi ñëwee ne daara ñu tudd ñu bëri dañoo xaw a ree xaw a tooñ waaw waaye bu ñu demee ba gis ne que li nga xamante ne moom la ñu ŋànk mooy cosaan ak aada parce que loolu la ñu doon rap loolu loolu ndongo doon wax naan cosaan ak aada donc euh, bi ñu demee ba commencé fësal rap wolof bi c'est la ñu commencé nag di am cër ci di euh, yeneen groupe yi fi nekkoon ni ñu cërale gis ne que suñu pàcc mooy di fexe ni ñu biiralee wolof ba incha allah ba ba ba du naxsaay parce que dañu xooloon li nga xamante ne moom la euh, colonisation bi maanaam duggee ci xel yi Euh, ak ci jikko yi ba nga xamante ne jikko yi soppeeku ne ku nekk di roy américain yi ñu ne ñun dañu ñëw ak euh, mouvement rab boo xamante ne dafay fësal wolof donc euh, ci loolu la ñu la ñu ràññalikoo ba tax aussi c'est la ñu tegee suñu carrière donc groupe yi fa nekkoon ay groupe yoo xamante ne ñu bëri ñenn ñi ñu ngi fi ñeneen nag ñu bëri nag tamit nekkuñu fi nekkatuñ fi parce que comme ni ñuy wax rek mbir mi jafe woon na jamono yooyu technologie bi tolloon fi mu toll gars yi amuñu woon internet ak yeneen Euh, pour mën a fësal seen liggéey donc euh, loolu taxoon na euh, groupe yu bëri amoon nañu ay jafe-jafe pour ñu mën leen dégg ci àdduna bi waaye boo xoolee hip hop fi mu jógee ba léegi da ngay xam ne li nga xamante ne moo fi nekkoon ak léegi wute na léegi même boo nekkee groupe boo xamante ne si sa biir néeg sax nga nekk mën nga fexe ba àdduna bi jot ci li ngay ci li ngay def waaye gàcce ngalaama groupe yooyu nga xamante ne ñooy mooy ñooy groupe fondateurs yi nga xamante ne ñoom ñooy ñi teg li tax tey hip ak bépp rappeur Sénégal am gëddam waaw bu fekkee ne damay tontu laaj bi en tant que mélomane euh, ban effet la def c'est mooy li ñuy wax rek xam nga euh, pour nga juger benn album public public bi nga xam ne masse bi ñoom ñooy mën a wax ban effet la def mais man en tant que melomaan apprécier naa bu baax album boobu noonu euh, parce que c'était un album boo xam ne dafa amoon benn couleur underground et c'est vrai que jamono boobu Euh, couleur underground boobu xawoon na manqué ci mouvement hip hop bi euh, effet bi mu def nag euh, loolu xëy na peut-être yenn melomaan yi ñi nga xam ne peut-être ay fan su rapport joo lañ wala ñi nga xam ne jamono boobu ñu ngi doon dund rap bi dëgg mu ñoo ci gën a mën a tontu quoi mais en tant qu'artiste jugement bi ma ci am mooy que c'est vrai dans la longévité boo xoolee jamono boobu 98 ak léegi style boobu sax def na dañ dem nañ ba nga xam ne dafa dafa nax saay presque nekk na style boo xam ne bi mu ñëwee. presque ñi nga xam ne parce que suñ concert yi ñu ci bari daan am ay jigéen ñoo xam ne dañ naan gën a ñemee concert yi am na benn benn type de public boo xam ne ñemeetuñu concert yi xëy na parce que dañu jàpp ne le rap c'est juste euh, le côté hardcore wala le côté raw kese mooy rap alors que le hip hop aujourd'hui on des artistes qui sont des rappeurs mais dañuy sax way tu vois donc alors que nit ñi conception bi ñu ci amoon dégg-dégg bi ci ñenn ñi amoon mais dañ leen jàpp ne rek euh, groupe boobu ngay wax dañu ñëw ne képp kuy rap waroo way donc loolu moo doon message bi nga xam ne moom la ci nit ñi gënoon retenir alors que peut-être message bi du woon loolu boo dégloo seen yenn taxi yi ça parlait de de de la prison ñi nga xam ne dañ leen a fàtte amoon na benn frange société bi ñoo xam ne nit ñi fàtte nañ leen donc rapport Dior dañ doon défendre ñooñu noonu quoi donc man xalaat boobu rek laa ci am xalaat bu gàtt boobu laa ci am mais euh, je pense que ça a quand une belle époque pour ñoo Euh, aujourd'hui nag il manque beaucoup au mouvement léeg lee ma taseek euh, Bibson wala ma taseek euh, euh, Keyti ci ay yeneen projet donc maa ngi leen di big up di leen di leen jox cër bu mat sëkk lu waaw lu ko waral mooy liggéey mooy mooy mooy xam nga comme li ñuy boo amee tableau de bord mm-hmm. nekk ci benn mbir dëggu ci rek du amul lenn lu lay mën a amul lenn lu lay mën a yëngal mm-hmm. parce que ñun nekk ñu woon di def musique parce que dañuy compétir ak suñu ay morom wala ak yeneen artistes defuñu ko pour loolu quoi dañu doon def musique parce que am nañ benn public am nañ benn message boo xamante ni c'est un message crucial pour l'Afrique un message boo xam ne pour pour euh, c'est un message universel donc xam nga doo nekk di wax ak waa Angleterre waa États-Unis ba pare naan naan da ngay bàyyi xel ñi nekk euh, Médina wala Colobane di nga leen bàyyi xel mais je veux dire message bi ñu amoon jamono boobu c'est un message universel donc euh, moo taxoon jamono jooju xëy na boo ko xoolee sax boo delluwaatee di nga gis ne entre 98 99 2000 ñun ñooy le seul groupe bi nga xam ne ñu daan tourner presque partout dans le monde donc originalité bi nag du leen lu dul liggéey c'est dans le cadre artistique parce que li ñuy def art la nekkul rek juste euh, comme ni ñi ko nit ñi jàppee woon benn phénomène de mode ça ça allait au-delà de ça moo tax ñun ba léegi ñu continuer exister mais xam naa ni originalité peut-être sama waa ji moo lay gën a mën a détailler euh, ci wàllu musique musicale bi quoi. waaw ci wàllum originalité bi li nga xamante ne moo taxoon tamit ñu euh, maanaam ñu fësoon ci mooy yar gi ndax dañu jóge ci ay ci ñaari. ëttu kër yoo xamante ne ëttu këru diine la euh, moom boo xoolee waa këram ay euh, ñu am daara di jàngale ñun tamit suñu waa kër tamit nitu daara lañu euh, leneen li mooy suñuy jur moom papam jàngalekat la woon man sama baay jàngalekat la woon sama baay sama baay jàngalekat la woon inspecteur de l'enseignement la woon te mi ngi woon nag ñoom Cheikh Anta Diop nekk ci ñi nga xamante ne dañuy fësal ñu lànge ak liggéeyu africain yi ci kaw suuf donc euh, bu fekkente ne da nga màggee ci lu mel noonu nga xamante ne sa pap bu la fekkee da lay jox benn téere wala mu wax la nga jàng wala mu jox la benn livre benn téere ci Afrique wala la conscience africaine da ngay dem ba da ngay jomba wax loo xamante ne waxi kasaaw kasaw la donc ba tax na li ñu doon def surtout mooy fexe ba euh, ni ñu demee woon ba jot euh, barke bi nga xamante ne moom la ñu suñu wayjur yu jiwoon ñu dem ba du ñu tas seen yaakaar ci jëfin wala waxin bu ñaaw boo xamante ne du dëppoog li nga xamante ne mooy mën a fësal suñu aada fësal suñu cosaan te di yëkkati li nga xamante ne mooy xelu xel ak deru nit ku ñuul donc ba mu ko defee euh, ñu dem ba suñu wéjur yi ràññee ñu ci loolu population bi tamit ràññee ñu ci loolu yaakaar naa ne boo demee tamit bu tudd daara ji dafa am sas goo xamante ni daf laa war donc moo tax it euh, loolu bokk na ci li tax courant musical bu ñëw euh, danañ ci comp waaye du ñu këf wala wala mu yóbbaale ñu daal. waaw différence bi mooy comme li mu wax sànq mooy technologie bi xam nga euh, avant quatre-vingt-dix-neuf boo xoolee courant yi amoon yëpp bon boo xoolee par exemple y avait plus de une présence analogique analogique mooy euh, distribution yi si ay cassette la woon si ay CD par exemple euh, mais vraiment support yi je veux dire support MP3 nekkuloon lu développé boo xoolee jamono juñ toll nii comme ni mu ko waxee di nga toll sa néeg toog sa néeg def benn euh, programmation xam nga mixé ko et tout ça avec des logiciels mu dem fu sori distribution bi tam c'est pareil na ngay distribuer di mën nga distribuer sa son euh, sur le plan digital peut-être différence boobu la ñu la ñuy wax euh, mais aussi boo ko xoolee même ñi ñi nga xam ne ay vrai mélomane la dañ naan la ba léegi am na loo xam ne dañ ko xaw a perdre quoi xam nga ñun bañ daan enregistrer dañ daan def sax dañ daan répéter ma nga xam ne boo ñëwee studio fekk na pare nga fekk na bu ñu nee top c'est parti yow maîtriser nga li nga war a def yëpp mais aujourd'hui ni nga gis koo xam ne mun mën na ñëw studio improviser dugal ay ay kiiwam quoi mais la différence elle est après je pense que comme li ma wax c'est le public qui juge toujours public bi ñoom ñoo lay mën a wax peut-être différence entre les années 90 ak les années ak ak années yu ñu nekk nii quoi mais euh, euh, xëy na comme li ñuy wax euh, jamono bi musique bi c'est à l'image des réseaux sociaux bon malheureusement il y a côté boo xam ne euh, qui est très négatif parce que euh, gars yi dootuñu bàyyi xel côté scène bi ñun par exemple ñun groupe de scène lañ li ñuy def live la mais tey dama remarqué ne artistes yu bëri bu ñuy performer sax presque c'est en playback xam nga Euh, donc loolu boo xoolee différence boobu rek avant les artistes ils étaient beaucoup plus live ñun dañu daan dem bi njëkkee gis euh, Coccis dafa ñuy ànd seen maquette ñu ne ko ñun amuñu maquette parce que gars yi ñu daan jël cassette dugal ko enregistré seen voix teg ko tegu ci kawam mais daf ñu laaj ñu ne ko ñun dañuy beatbox tegu ci kawam ñu nous a dit mais wow c'est ñu ne ko non ñun amuñu maquette c'est a cappella et c'était parti comme ça donc loolu mooy peut-être différence yi may yi may waaw loolu loolu jot waaw waxoon nañ ci rek mooy ne mooy ne que tolluwaay la am na ñoo xamante ne nañ ko def pour ay raisons yoo xamante ne xam nañ ko mooy euh, def buzz ak yooyu euh, waaye ñun li ñu faral di wax rek mooy dafa am loo xamante ne euh, moom la ñuy jiital muy éthique éthique lu am solo la ndax comme ñun dañuy faral di dem di représenter Sénégal ci ay réewi réew bëgg nañu fu ñu taajee laaj ñu loo xamante ne laaj ñu ci kaddu yi nga xamante ne moom la ñuy yëkkati Euh, ngir askan wi mu bañ a doon loo xamante ne dañu ko yëkkati ci euh, ngir benn nit dong wala pour suufeel suñu morom ba loolu tax na euh, lu mel noonu moom <clears throat> yaakaar naa ne duñ ko faral di fësal donc ñi nga xamante ne tamit ñu ngi koy def hip hop loolu tamit bokk na ci waaye bokkul ci pàccu hip hop yi nga xamante ne ñun neex nañu waaw ndax nekk na loo xamante ne même bu ñu jamono ay groupe daan clashé wala yooyu sax ci teggin lañ doon waxeek nit ñi ba tamit ñu xam ne que ñu nekk ñu si mouvance boobu li nga xamante ne moom ñu gën a njëkkati mooy naka la ñuy fexee ba euh, nekk ay entrepreneur yoo xamante ne dañuy defar Sénégal euh, teg ay projet comme projet indiscipline bi nga xamante ne moom la ñu teg récemment euh, fexe seetal Sénégal naka la ñuy fexee ba bu ñu demee beneen réew ñu am lay bi nga xamante ne mooy lan la sénégal yi wala africains yi mën a indi ci jikko wala ci tontu boo xamante ne dina tax euh, lépp ba tax ba tax suñu der mën a set ba tamit mën ñoo yëkkati ci lépp loo xamante ne luy suufeel doomu aadama la donc euh, yaakaar naa ne loolu mooy suñu suñu Pastef donc euh, clash am na ñoo xamante ne nag da leen di dundal te am na ñoo xam ne daf leen di may buzz waaye ñun moom dépassé nañu buzz parce que je pense que am nañu loo xamante ne jafe na taw sénégalais yi ñooñu ko jox mooy cër bi nga xamante ne dëkk bi dañu ko cërale fu ñu dem ci station bus yi ci taxi yi ci jaaykatu gerte yi koo ci wax da da lay génneel sa benn texte ne la sa texte bi nga waxoon fii daf maa dimbali ci àddina euh, bul xaar looy def def ko takk taxoon na ma takk jabar ci jamono taxoon na ma ubbi sama entreprise euh, ana sutura bi fi ñoom maam bàyyi woon tax na ma xaman maay kan ba bi ma demee bitim réew réeru ma donc loolu mooy xeetu message yi nga xamante ne ñun moom moo ñu soxal. et puis le, le défi il gars yi xam ne euh, instant bi ñi leen di déglu bari nañ. te bu fekkee ne am na ñu lay déglu comme ni ni mu ko waxee je pense que dañu war a gën a insister si le fait que ku ci nekk ak sa sa style ah, mais war nañu war nañ fi bàyyi way wu rafet way wu rafet mooy jeunes yi leen di déglu lan la leen di musique bi di apporter parce que c'est voilà euh, toll nañ foo xam ne euh, waruñu rek déglu musique wala ñu déglu musique bi après mu bañ a apporter dara ci suñu économie wala ci suñu suñu dëkk wala ci éducation parce que tey ji ndaw ñi ñu ci bari dañuy déglu musique hip hop. mais musique hip hop boobu il faut que mu apporter il faut mu am benn plus value te plus value boobu nekkul lu dul ñu ñaax ndaw ñi ñu gën a mën a dem vers vers vers l'éducation vers la science waaye mais loolu la parce que Afrique instant bi dafa am défi bu ñu am défi boo xam ne c'est un défi qui est énorme mais des fois j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte le le temps est en train de passer et l'Afrique a des défis défis yooyu ñu am nag moom lañu war a relever te je pense que musique bi mën na participer lu bëree bëri bëri bëri pour mën a gindi yenn ndaw yi teg leen ci benn yoon boo xam ne bu ëllëgee duñ ko rëccu daal. ku lim da ngay jum parce que xam naa ni chaque fois buñ ma laajee lu mel noonu bu ma joxee tour sax léeg-léeg dinaa gis polémique bi day bëri dañ naan ah diw citéwul diw citéwul diw. Euh, mais récemment am na benn artiste boo xam ne man je me permettrai me citer ko parce que gis naa ni il est vraiment il est particulier mooy Elzo Jamdong nekk na ku particulier tudduma ko nag parce que euh, moo gën a ay ñeneen ñi wala moo leen gën a lii mais c'est parce que gis naa démarche bi mu am démarche la boo xam ne ça me parle xam nga mais euh, mën nañ fi citer ñu baree baree bare artistes yi nga xam ne vraiment ñu ngi def lu rafet bari nañ boo leen doon citer du jeex mais Elzo jàpp naa ni c'est quelqu'un de de de très bien waaw dëgg la mi ngi bëgg yàgg ndax ñi doon taaxirlu dem nañ ba dañ ñoo bëgg poñe fi ñu fi mu toll nii gars yi dem nañ ba mënatuñoo xaar ñu ne yéen bu ngeen continuer nii te génnewu leen album bi dañ leen di poñe waaye nag euh, ñi nañu xam ne euh, li li ñoroon yàq rek moo ci des. Mm-hmm. le 30 janvier incha allah la album bi di génn euh, comme ni ñuy wax rek jamono bi ak plateforme yi plateforme digitale yi. Euh, boo génnee album nekkul rek Sénégal nga koy génnee waaye fépp ci àdduna bi waaye tamit euh, muy CD ak leneen ak leneen sur le plan international day am benn sortie boo xamante ne fépp foo dem ci àdduna bi da mën a gis album donc dañoon liggéey ci travail de synchronisation boobu nga xamante ne bu génnee Sénégal day génnandoo France génnandoo États-Unis génnandoo fépp te nekk na liggéey boo xamante ne boo koy def it da ngay préparer terrain bi euh, ñu bëri dañuy génnee après jël kii bi yóbbu ko après waa Sénégal ne jot nañu waa Amérique ne jotuñu waaye jotaay bi ngir mën a fexe ba ku nekk li nga xam te ne mooy sa mooy sa cër ci album bi nga jok nga jotandoo ko ak sa morom moo taxoon ñu doon taaxirlu waaye ñor na ba ba am na lépp nag loo xalaat ci ci loo xalaat ci caf ka <laughs> mi ngi ci biir album bi donc waaw loolu dina dina joxe benn idée daal jamono waaye ceekule boo xoolee làkk la boo xamante ne ganaar la jóge waaye ñun bi ñu nekkee xale ñun ñëpp ñun waa Guinée waa Mali waa Côte d'Ivoire waa waa waa Bénin waa Niger am na ñu bëri ñoo xamante ne way nañ ko fii colonie de vacances sax dañ ko daan way donc way la boo xamante ne dafay méngale génération Afrique yëpp donc euh, liñ ci jublu mooy fexe euh, dajale ci li nga xamante ne dañ ko moyee maanaam Afrique dafa moyee méngoo euh, ci koom-koom Euh, ci wàllu ci wàllu euh, transparence ci wàllu frontière ak ci wàllu dimbalante ndax ñu bëri fi mu nekk nii bu benn pays africain amee problème dañuy xaar français yi wala ñu xaar américain wala ñeneen ak ñeneen waaye dañ gëm ne ñun artistes yi suñu wàllu mooy bu gaa yi yéexee euh, ci unité africaine wala yéex ci am une monnaie commune waxuma waxu ECO nag waaw ECO moom waxuma ko waaw moom waxuma ay affaire waaye bu fekkente ne waaye gannaaw loolu li ko weesu loolu lépp loo xamante ne mën na méngale Afrique ci anam boo xamante ne ku nekk day xam ne yow ak sa morom am ngeen lu ngeen bokk ñun nañ ciy dox donc euh, ceekule euh, maa ngi dégg sax keroog ñu ngi tase benn benn Ghanéen bu wax mu ne mais lii sama lii sama dëkk la jógee boo tase ak boo tase benn Nigérian tam loolu la lay wax donc euh, loolu mooy li ñu ci jublu woon te ni mu ni mu tàmbalee nii neex nañu lool lool lool lool lool lool waaw on est ah, jamono c'est l'actualité jamono actualité la jamono boo xoolee clip bi ñun bi ñu ciy feeñ ay secondes lañ ci feeñ mais boo xoolee boo ko seetaanee di nga xam ne message bi dañ ko adressé jeunes yi ndaw ñi parce que tey jii des fois dangay da ngay sentir ne dafa am désespoir da ngay sentir ne des fois nga gis koo xam ne. mën na yeewu ne ok damay dem immigré jël désert bi wala jël yoonu géej gi wala yooyu parce que dafa dem ba amatul yenn espoir yi te ñun espoir boobu la ñuy raviver à travers le morceau jamono parce que c'est vrai am na nit ñi dañuy rêver de des États-Unis dañuy rêver Europe rêver di rêve di gént Paris Lisbonne et cetera mais war nañu mën a xam war nañu mën a tamit def li ñuy wax rêve africain te rêve africain boobu ñun rek ñoo ko mën a jëmmal ndaw ñee ko mën a jëmmal te pour ñu mën ko jëmmal dafa ànd ak euh, euh, pas-pas liggéey ak euh, aussi euh, gëstu wut xam-xam euh, parce que jàpp naa ne jamono bi ñu toll nii Afrique waratul nekk rek Afrique bi nga xam ne day jooytu Afrique bi nga xam ne bu ñu amee suñu ay soxla dañuy dem Élysée wala dem ci français yi wala yooyu je pense que bu ñu xoolee démarche bi Ghana am nga xam ne dem nañ ma xam ne soxlatuñu sax ndimbalu FMI ñu ngi demal seen bopp nga xool Rwanda démarche bi moom ak ñeneen ak ñeneen Kenya ak ñeneen ak ñeneen ku ci nekk yaa ngi yëngu mbooloo mooy doole. xam nga te mbooloo boobu mooy jeunes yi boo xoolee li ëpp ci ndaw ñi li ëpp ci population bi en Afrique ay ndaw lañ ndaw yooyu nag ñoo mën a defar Afrique moo tax message yu jamono li ci nekk bari na lool mais en en définitive dañu ñaax ndaw ñi ñu gën a gëm seen bopp am yaakaar ci seen bopp am yaakaar ci Afrique ne mën nañ ci génn te buñ ko buñ ci taxawee rek dafay nekk jikko jamono la. am na am na ay collaboration yu ci nekk euh, am na benn artiste bu bu mag a mag a mag boo xam ne bindkat la euh, kii la quoi moom franco-rwandais la dama jàpp sax ne rwandais la laay wax sax parce que suñu mbokkum africain la ñu koy wax Gaël Faye euh, moo participé ci album bi am na benn guitariste boo xam ne xam naa ni sama sama waa moom moo xam gaayu ñàng yi quoi moo kuyaate lañ koy wax guitariste la guinéen bu bu bu bu yéeme sax Euh, posé na ci album bi ku ñuy wax Mani Sauvage nga xam ne day liggéey ak Youssoufa euh, liggéey na ci arrangement yi on a fait des featuring avec des artistes yoo xam ne c'est des artistes de la sous-région euh, ñu ngi jógee Kinshasa ma ciy tudd Kratos tu vois ak ñoom NMB La Panthère donc ñi ci participé bëri nañ surtout sur plan artistique bi plan musical bi donc xam naa ni du ma mën a lim ñëpp mais ñooñu laa ci mën a citer ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci album Yaama Télé boobu nga xam ne mu ngi a génn fin janvier. loolu li li koy dégg bëri waaw mais euh, foofu la ñuy gën a produire parce que dañuy nit ñi dañoo jàpp ne du ñu bàyyi xel ci date yi ñuy def fii. mais boo xoolee euh, euh, li ñuy produire bitim réew loolu la ñuy produire Sénégal euh, boo xoolee fin d' bi presque li ci ëpp date yi ñu def fii lañ ko defee ci réew mi xëy na ah xëy na aussi yàlla dafa nekk ne dañu am benn tànk bitim réew moo tax nit ñi di jàpp ne que foofu la ñuy ëpp lu ñuy produire mais boo ko xoolee même si c' est à 40 ou cinquante pour cent la ñuy produire en si extérieur bi beneen moitié bi Sénégal lañ koy defee chaque fois. waaw indiscipline dafa nekk benn message boo xam ne dañ ko lancé yàgg na parce que du du du du lu bees ay 2011 defe naa 2011 daal mille 2011 2012 laa ñëw studio fekk sama waa ji xam nga rek moom mu composé benn son xam nga ma déglu affaire bi ne waaw xam nga et puis voilà naturellement ma benn idée euh, poser poser lyrics yooyu. donc bi ñu ko defee yàgg na ñu ñu def son bi job ci studio mixé ko def ci li ñu ciy def ba ay 2015 ñu doon def euh, benn li euh, ñuy def grand théâtre ci lañ ko boole ci répertoire bi ci lañ commencé di ko jouer nit ñi di ma laaj ah son bi moom xam nga ak yooyu donc naturellement bi ñu defee son bi ay année après am ko tudd euh, Karim bu yore benn mouvement bu ñuy wax SOS Rufisque nga xam ne moom dafa dafa moom moom da moom moom dafa dafa dafa dafa dafa nekk militant quoi moom militant la boo xam ne boo ko foo ko fekk sax xam nga chaque dimanche waaw Abdou Karim Ndoye chaque dimanche day def ay journée de nettoyage fële ci jokkul et cetera donc moo ma toppoon nag ne ma noonu foog ñu clipé son bi donc par la suite ci la ñu def clip bi bi ñu defee clip bi effectivement mu ànd ak jamono ji nga xam ne peut-être autorités yi dañu nekk di def appel mais ñun ba ñu yàgg nañ ci appel boobu yàgg nañ boo xoolee ma dolli la ci leneen sax en 2010 y avait dans l'album de Daara J Family un son qu'on appelle nit ci laa doon mi ngay këpp sa kër nga doon fomp loo lekk foog nga dajji sànni paquet mbuus bidon set rek ci sa bopp mbedd mi nga song li la wër doo ko fonk suuf loo ko jox mu ton te loolu c'était en 2010 donc ça veut dire que ñun ça fait longtemps ñu am message bu mel noonu xaaruñu nag autorité xaaruñu kenn ku ci def sa loxo pour Sénégal la. <laughs> waaw waaw euh, defoon naa ko fii concert parce que dafa fekkoon ma euh, projet bi bi ma ko njëkk génne euh, mun naa wax ne sax ci biir Sénégal dañ koo xeeboon ndax ba muy njëkk ñëw indi projet bi gars dañ ma naan projet boo xamante ne da fëgg sa dënn rëq dëw sa ci doo ci dënn doo ci say leex loolu ñenn ñi sax dem nañ ba wax ni mbirum dof la waaye buñ euh, buñ ci tegee tuuti euh, projet bi sur le marché ñu nominé projet bi ñu nominé ma au victoire de la musique nga xamante ne musique musicien européen yi wala africain yi nga ne ñoo gën a fës ci la ñu bokk donc ma defee ay tournée ak Lenny Kravitz euh, ak ñeneen yeneen artistes Bobby McFerrin ak yeneen yeneen artistes yoo xam te ne ñu ñu ràññee la Johnny Hallyday ñu ñu ràññee si wàllu si wàllu international donc euh, ñu dem ba jamono après nag gars yi ne ma yow li ngay ñamal ñële nag war nga ñu cee mën a ñamal tuuti <laughs> waaw looloo looloo waraloon ma dem ba diir man sax lima ma li ma ci taamu woon mooy euh, su ma demee ba nga xamante ne mbir mi fësal naa Sénégal bitim réew ba ñëpp xam doomi réewu Sénégal Euh, naka la mel ak lam mooy sababam euh, damay dellu fii ci réew mi euh, li nga xamante ne moom laa doon fësal fële ma fasal ko fii ndax balaa ngay laax jaay da ngay laax lekk donc ma xaaroon ba sama bisu anniversaire ma boole lépp nag def ko concert boo xamante ne dama ko jagleel askan bi pour wan leen ne ñun doomi réew yi bu ñu génnee lii lañ fay defi bu ñu toppee Sénégalais yi ndax xam na concert bu ma def foofu boo xamante ne Trianon la woon bi conseil bi pare gars yi dañ maa topp ñu nekkoon ci salle bi yëpp dañ maa topp dugg ci biir métro bi jour boobu métro bi dafa bloqué ba kenn xamatul fan lay jaar donc ba gars yi di wax naan sénégalais bi kan la parisien ak yeneen euh, euh, kii yoo xamante ne France lañ nekk yeneen journaux euh, def ci ay rubrique bind ci pour wax nekk am na benn sénégalais boo xamante ne daal mi ngi perturbé dëkk bi ko <laughs> léegi nag li ma bëggoon def mooy wan leen ban xeetu liggéey laay def te surtout fàttali. Euh, sama moromi artistes yi ni dara jarut a xeeb ndax bi ñu nekkee xale euh, ñun ñoroon defar ñoo doon instruments yi ñu ko doon def ñoo ko daan defaral suñu bopp danaa ut potu tamaate euh, léeg-léeg nga def ci deeru bëy wala nga jël saagu sokosim yooyu raax ko def ci def ci saabu noonu lañ daan defaree ndënd teg ko ci xal gi mu dem ba nga xamante ne boo doolee di nga xam ndax accordé ne wala accordé wul man ci loolu laa màggee donc buñ ñu demee tam ba boole ci ay bitbox da dem ba jamono danga naan ok man pour ma def musique euh, damay dem ba tuma instrument nekkul damay def musique waaye man maay musique donc ci anam boobu laa doon fësal léegi li nga xamante ne moom laa doon def donc kontaan loolu ba nga xamante ne bi mu ñëwee fii gis naa ne euh, gars yi nangul nañ ma ko gars yi bëgg nañ ko ba chaque année dañ may laaj ñëw yow li nga fi defoon grand théâtre xanaa doo ko defaat waaye bon xam naa ne euh, fi mu nekk nii album yi ñi ngi ñëw donc albumu daara ji mooy priorité bi moo taxoon tamit euh, ma dakkal lépp loo xamante ne wàllu tournée la parce que dafa am fu ma bokk mooy daara ji mooy sama priorité bu daara ji xew xewle ñëppay ñàkk waaw Fada Freddy day ñàkk Ndongo day ñàkk donc gannaaw loolu si la si la ñëwee donc euh, fexe album bi di waaj a génn mu yaamatale ñu liggéey ko ba pare am na nag album yu ñëw albumu Ndongo mi ngi ñëw waaw na ko pare wolofal yaa ngi ci hip hop bu wér bi mi ngi ci biir message ñi ngi ci biir waaye tamit li nga xamante ne mooy kàllaama kocc ak doomi réew mi ngi ci biir donc li nga xamante ne daf la ci hip hop ngay seet naan ndax rab am na ba tey wala amatul euh, bu album boobu génnee lépp di leer incha allah <laughs> <laughs> ñun ñun ñun dañuy mottalante dañuy mottalante ndax ndax am na ci loo xamante ne am na foo xamante ne su ma fa yamee sama ndox day feeñ waaw sama ndox day feeñ jamono yi xamante ni ci ndof laay nekk parce que damay su may créer damay mel ni ku damay mel ni damay mel ni ku nekk en transe waaw damay mel ni ku kuy daanu yées wala kuy daanu rab parce que damay day jékki-jékki mu mel ni dafa am luy dund ci man luy bax loo xamante ne bu kàddu yi di wàcc il faut que ma fësal ko wala bu musique bi di jékki-jékki di ñëw il faut que ma fësal ko jamono yooyu loo mu wax dama ko dégg su boobaa nag mooy nekk di réguler affaire bi <laughs> di régler affaire bi pour que lépp loo xamante ne nuy agencé mbir yi ba mu mën a ba ba mën ko teg ci cassette wala organiser ko donc euh, moom moom day fexe matal loolu donc dañuy matalante moom tamit buy liggéey ci wàllu composition beeg yooyu dama ciy intervenir ak ak mbirum xalaat yeeg direction artistique yi donc euh, dañuy matalante rek waa ku ci nekk li nga xamante ne moom ngay wët boo demee ci sa morom da nga fekk loolu tax bokk na tamit ci li nga xamante ne moo dëgëral suñu ànd te tax bokk ci li nga xamante ñu ngi leen di jëfal kontaan nañ lool ci dalal bi ngeen ñu dalal euh, Sénégal jëm ca kanam ñu ngi ñaan yàlla nag jàmm ak salaam parce que àdduna bi yëngu na gis nañ leen du 2020 bi dañ ci dugg rek moom ay yëngu-yëngu na gars yi dal nag dirigeant àdduna bi laay waxal nañu dal nañu dal nañu dal bu baax te xam ne euh, jàmm ci la lépp xaj you know all we need is peace ndongo di bu daara ji famille waaw yaakaar naa ne wax na lépp damay dellu rek di di souhaiter Euh, réew mi ak réewum Afrique ak ñi nga xamante ne euh, maanaam ñoo ñu jege euh, suñu voisin yi bu ñu leen fàtte ndax nit ku nekk boo lakkalee maanaam sa dëkkandoo ngay njëkk woo wallu bu ñu fàtte Guinée bu ñu fàtte Gambie bu ñu fàtte Mauritanie bu ñu bu ñu fàtte Mali ñoom ñoo ñu wër nañu fexe gën a ñaaxaat Euh, suñu bopp ci diggante bi nga xamante ni daan nañ ko rafetal te jamono waa li may wax nag sori na te jamono jaaw daaw da kay da ba jaawara ak ñeneen ak ñeneen nañu fexe eh, ba diggante bi ñu gën ko rataxal parce que bu ñu fàtte bu njëkk euh, Afrique de l'Ouest benn dëkk dong la woon ñu dem ba colonisation ñëw ñu xaaj ko nekk yow da ngay dem fële ñële dem fële euh, kii làkk anglais kii làkk français loolu rek moo ñu wutale waaye boo demee Kora bi ngay fekk fi ngay fekk Mali moom ngay fekk Guinée moom ngay fekk feneen ak feneen donc euh, nañu xam ne lépp ñoo ko bokk ñu yaatalaat li nga xamante ne mooy penc bi ba tax li nga xamante ne mooy économie bi bi ñu bëgg bi ñu bëgg am fii léegi diir ñu fexe ko suqali ci li nga xamante ne mooy bennoo boobu euh, diggante Sénégal ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay dëkkandoo waaw mangook nag booloo doon benn